kila bagona am bari masta bare kooku mooy njoogu bare kii nitu social la lu muy def da koy contando na boo liggéey waaw moom de l'école Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye ñu ngi lay remercier si geste bi xam ni boo ñu ko joxaloo nit jox ko ñeneen it já tere ñu remercier la si já que war nañu bari elevi é yaa ngi soulagé aussi personnel kon man vraiment remercier remercier sa équipe bi nga àndal yëpp aussi waaw remercier équipe bi nga àndal yëpp parce que tam loolu aussi mooy développement aussi mooy développement développement c'est c'est c'est la solidarité développement aussi c'est l'entraide politique te gis nañ action yi gis nañ formation yi gis nañ jàppale yi dëkk bi ak hors de Malika aussi parce que on suit l'actualité kon ñu nit suñu man du remercier la euh, ñaanal leen aussi yàlla gën leen a yokk parce que itam euh, alal si xol la sax waaw dañ euh, ni parce que ku jël si alalam jox la am na xajoon na si moom ok mënoon nga ni bon ñii privé la da fay pour jàng mais wax nga ko léegi

mais yéene le waajur bi amone dem ba tok tok mais mets-toi à la place ci wajur boo don doon yow la da ngay bëgg ku la dimbali kon te yàlla def suñu structure mu ngi tudd groupement d'utilité scolaire et sociale groupement d'utilité scolaire et sociale est-ce que social boobu dañ koy def rek que de nom ou bien dañ ko wara traduire en réalité Dieu merci bi ñu amee traduire ko en réalité dajé aussi ñuy def social ba xamni ne dañuy def social war leen leen mëna

et hors de Malika il y a un un oh, chef, Inch'Allah. daal je suis un collaborateur, qui collaborateurs euh, le directeur de l'élémentaire, c'est Wanda est mon adjoint responsable de l'élémentaire, qui est le directeur financier du bus, en même temps comptable de l'école.

ni boy def fang nga ko ñëpp gis mu ni fang aussi waaw ça donnera servira de leçon à d' autres aussi ak ne am na ñu la ëpp de wala ñu am li nga am bëgg nañ ko def c' est l' occasion c' est l' occasion kon ñu wolof naa leen naan jaamu yàlla si jaamu yàlla yi yàlla jëm kanam daal. jàpp traay boobu nañ ko def lépp mais kii dafa nekk exemple ci Malika. exemple la ci Malika xale yu bëri dañu war a woy ci man maa leen privé la mais dañ ko li nga wax ci social boobu aussi wax naa la ko loo xam ne bëgguma ko wax ah, man ak yow la bëgg nañ ci jàpp bu baax du rek voilà kon euh, ñuy gars yi dañu doon gunge si ah. honorable ça na ngeen def pare dem ci yeneen école comme que dañu ñëw en retard nest Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.